nuyu naa leen bu baax a baax di lee ziar waa man euh, ci mës laa bëggoon wax brigade des femmes euh, voilà donc hmm, dernier épisode bi nii euh, gis nañ ne Jeanne hmm, agressé nañ ko xaw ma day dee xaw ma du dee mais man daal dama yaakaar ni Abdel la Abdel laa ko yaakaar parce que Abdel euh, ñëpp xam nañ ne Abdel amul xaalis Jeanne moo am xaalis Jeanne moo ko yoroon et te Jeanne moo doon diriger et tout te man Abdel depuis le début wóoluma ko Abdel man xam naa ne li muy wone ak li mu doon dëgg dëgg dëgg du Abdel du nekk. Euh, lu le gentil petit mari nii rek comme ça nii rek di obéir ay ordre chant non non loolu vraiment man dama yaakaar ne Abdel moo ko reylu xaw ma nag day dee xaw ma du dee ok ñu ngi leen di remercier. asalaamaaleykum waaw Lu Xew TV nuyu nañ ñu ngi di sant ci liggéey bu rafet bi macha allah ak kenn ku ne di wax xalaatam lu ko metti ak lu ko mettiwul. wallahi mais man daal vraiment vraiment film bi moom neex na fu neex yem mais daal Jules César daal moom niñ koy kiiwee dafa yomb de trop daal dafa yomb waaw Jules César waaw ay rëccam ak yooyu daal ak ni muy génnee dafa yomb de trop waaw dafa yomb daal vraiment te Jeanne daal moom vraiment waru woon a demee noonu daal waaw waru woon a demee noonu loolu moom lu ñu metti la vraiment waaw. salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziara ba yéen a ngi am jàmm di rafetlu bu baax a baax seen liggéey di jaare yi nga xam ne ki ne ne yëpp ñoo leen di déglu di leen siiwul ñi leen siiwul ñëpp daal maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm man dama bëggoon commentaire quoi ci seen mars mars ay euh, série la boo xam ne man dama koy suivre quoi Euh, épisode ba tey maa ngi koy suivre bu baax a baax mais li ñuy joué lépp am gis naa ni lépp am na ba si kooku noonu violé woon doomam boobu ay daa xawma même loolu noonu noonu la am noonu la amee te am na ñu koy dund am na ñuy dund tamit du gën a métti loolu te seeni waajur ñoo leen koy teg mu doon loo xam ne fi ne duñ ko mën a nettali kenn. wala mu doon loo xam ne ki nii ne duñ ko mën a partage ak kenn daal duñ ko mën a wax ak kenn parce que loolu dafa metti loolu ñu ci ne lu am la euh, kantaa ñi nga xam ne ki nii ne nag moom lañu jàppoon si jigéen yi ñu rëcc xama ñëw fas yéene taxawal seen brigade pour euh, défendre seen bopp même loolu noonu Sénégalais yi am na si góor yoo xam ne ki ne dañoo tegul jigéen seen place ba nga xam ne ki ne ne lu leen neex lañ leen di def affaire yooyu noonu ñoom loolu lañ jug pour défendre ko mais loolu tamit lu am la lu am solo la série bi daal boo xoolee ni ma ko mën a waxee li ñuy li ñuy joué boo xool lépp dafa nekk réalité lépp dafa am lu am la ñuy joué muy doon lu série neex boo xam ne ki ne ne man moom. nii ma concentré wu nii maa ngi koy doog euh, def ci série vraiment doon na série bu neex boo xam ne ki nii ne daal ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax di leen ñaanal seen liggéey gën a jëm si kanam quoi. je veux être plus maanaam xaritam bi man damaa xamul exactement turam bi xaw ma nu mu tudd léegi kooku moo war a jege tata Umu Kalsum expliqué moom tamit kaawam ni ko moom. elle a vécu la même chose qu'Aïda parce que moom dafa doon dund loolu ak ak tontonam loolu la wax ak nijaayam loolu la wax léegi nag comme ñoom loolu moo taxoon ñu mel ni kuñ bokkatuñ ci dund bi daal genre topp beneen dund banditisme yooyu noonu genre léegi nag comme Aïda dafa yàlla dafa def mu de moom mu jéggi tata Umu Kalsum mu xamante ne ci wàllum fondation bi lay liggéey jéggi ko expliqué ko kaa bi genre après liggéey ak moom pour jëm a bàyyi habitude bee genre rétérol boobu daal léegi mu nit nit ku baax yee nit ñi sensibiliser la la la jeunesse ak yaay tamit ñu bàyyi xel bu baax ci seen doom loolu. après ñu bàyyi xel bu baax ci mami aussi xaraku ay dabi comme sœur moo ko doon protégé ba décédé ñu bàyyi ci xel ñu bàyyi ci moom xel jàppale ko waaw léegi xaritu ay dabi daal bëggoon naa moom bàyyi euh, jikko boobu noonu daal di def nit ku baax man loolu laa ci gis quoi. waaleykum TV maa ngi nuyu bu baax di leen ziar bu wér. dëgg la dëgg la thème bi am na solo bu baax baax télé bi ba am na solo yan yan yaatal ko bu baax baax baax doone ay télé télé télé télé waaw dëgg la dëgg la dëgg la mës waaw man ci moo ko kaa mës laay wax ñu am na solo solo bu baax baax baax baax kii gannaaw bi wax lay leeral kaa yi mel ni bëri na Sénégal papa yi di violé seen doom loolu dañ ko fi war a éviter mu jëlee ko fi ndax loolu moom doy na waar trop trop trop trop affaire bi genre daal kenn xamul daal waaw. yi damay gis ni def si ay moins dix huit ans moins de douze ans teg waaye loolu fi mu fii Sénégal moom doxu fi xale yi ndaw koy seetaan comme seen comportement cër comme solo bi ni sol am na épisode yoo xam du seen série sax beneen série la boo xam ne ñu ngi wane keroog koy seetaan ak sunu wàkk dama rus ba fi ma toog muy benn série la woon affaire yu doy waar te loolu série Sénégal yi war nañoo moytu idole moom loolu gisuma ko si te suma te moo tax benn série bu ma neex la daal neex daal yi daal mu ëpp ne di yeneen yi te kii nag benn seen benn fans la bu dëkk Bambey ñoo ko Moodu waaw teg tey jii li ngi seen bande annonce lañ gisee seen numéro bi jël ko enregistré ko benn yàgg bi waaw tey de ñun bu ñu xool ñu lan mun loo xam ne mooy beneen ñu lan mooñ loo xam ne daal leen lañ mën a di bëgg tey jii buñ ko seen yokkit mu gën ñoon ne muy si wàllu benn côté si colin gi quoi ak yenn yoo xam ne pour xale yi koy seetaan quoi beneen loo xam ne tey man paas sax seen bos bi nii bari gisuma ko ci kaa ndax seen yu bari seetaan naa ko ci passé waaw ci yenn série yi laa ko gis comme ñuy comportement yenn colin ak di wane yenn yenn yoo xam ne waruñu ko wane daal ci biir pour xale yi di ko gis affaire yooyu te asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa bitim réew maa ngi nuyu di sant ñëpp di gërëm ñëpp mais ci brigade des laay wax daa am benn affaire bu ma touché mooy euh, xale bu jigéen bi bu muy ñëw di wax paa bi naan ko boo waxul man ma wax naan ko noppil ndeyam xam nga loolu wowutoon ko ko wax parce que nu munta mel paa bi am na doom bu mag xale bu jigéen bi salaam loolu la amal lu salaam maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziare ñëpp waa Lu Xew TV maa leen di nuyu di rafetlu seen site bi di rafetlu seen liggéey aussi waaw di wax tuuti rek ci Mœurs Mœurs film bu am sens la film bu may suivre la tout le temps aussi waaw man lenn lenn lenn lenn rek moo ma ci metti mooy euh, jour bi muy am jeudi bi moo ma ciy metti parce que man dama paax damay dem daayira te xam naa ni ñu bëri aussi tamit jeudi bi di leen maanaam nekk jour boo xamante ni daal kii na leen su ma daal ñu xool mercredi wala ñu def ko samedi. waaw boo xamante ne ni daal nit ñi dinañ ko gën a mën a suivre mais jeudi bi mooy tax ñu bëri duñu xam sax yen jour lay am daal parce que jeudi dafa xew a kii quoi religieux trop gars yi dañ dem ay daayira ak yeneen ak yeneen quoi moo tax loolu kese daal laa gis ni daal war nañ ko mën a changer ci jour yi mais si biir film bi moom waaw man moom apprécier naa sama film la et puis c'est la première fois may suivre nii sax film. xam nga di ko suivre nii franchement parler film bu neex la gars yi nekk leen ci jàmm jaayëf. lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkool ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te